Salam alaikum. bienvenue sur si Info.com dans l'émission « émission artistes artiste ak aujourd'hui nous sommes ici ak donc c'est euh, un artiste qui est un artiste sur le le parce qu'on ne peut pas parler de culture urbaine xam sans pour autant parler de streetwear donc nous euh, dañuy waxtaan si si tout ce qui est graffiti avec streetwear avec notre ami notre frère Paul Paul Graff bi nga un moment yor moom mooy propriété marque bañkat bi ñu sol donc euh, tey on la pour parler de bañkat bay prési Guédiawaye ah, Paul sama première question mooy kat mooy Paul Graphe waaw Paul Graphe nag benn jeune la bu nekk fii ci banlieue bi euh, particulièrement ak Guédiawaye quoi mm-hmm. waaw léegi sa bañkat bi fan la jóge en plus est-ce que mën nga ma defal historique gu bañkat bi quoi wa bañkat bi d'abord bañkat bi parce que yàggul quoi mais dañuy wax ci jaar jaaru Paul graph avant tout quoi wa parce que man bamay may débuté ma xol ce man bamay may débuté presque euh, euh, art plastique xawmo ma awmo aw opportunité gis kenn ko ko xamné dina ko def pour ma ci jàll ay cours ay affaire yoyu quoi y avait un seul grand bo xamante ni mu ngi fële mo don bindal suñu mail il s'appelait Gérald mais awmo mun occasion mukk pour féké fu muy suñ ko joxee may bi after daf ñu ne jaar leen jël ko bu ñu ñëwee dañuy fekk lépp pare quoi par la suite laa dem ba xam ni affaire yi boo ko gëmee rek dina ñëw quoi par la suite laa si lancé di heure bu ma maire damay marché jëndal ma mayo rek bañ na ko ba day jënd boo xamante ni dafa am numéro am <laughs> léegi après naa a def sama tur ci suuf quoi noonu laa duggee ci affaire bi euh, par la suite sama benn grand di def graffiti moom mu ngi tudd Charles Tine maa ngi koy nuyu de passage sax hmm. si moom laa mujjee amee repère di Euh, papier bu mu bind defar ba pare sànni rek ma sàcc ko def sama suufu mat laa di ko reproduire noonu noonu noonu ba laa amee loxo quoi. léegi marque bañkat bi noo ko xalaatee ak nu mu dikkee si yow ak historique bu bañkat bi quoi c'est quoi ba bañkat non bi quoi laa bëgg nga wax ma. waaw mooy philosophie bi quoi. philosophie bañkat nag euh, euh, presque man boo xoolee si sama jaar-jaar la quoi parce que man moom presque ba ma juddu naa mais. xaw ma sama papa bu baax ko sama yaay rek moo fi nekkoon moom moo doon débrouiller et tout di ñu xam nga par la suite euh, mu dem ba tamit feebar mënatul quoi après finalement je me suis dit que comme que mère bi dem na ba mënatul amul kenn koo xamante ne dina ko mën a jàppale wala di koy jox et tout je me maa ngi doon jàng en même temps maa ngi ko doon def boo xoolee sax loolu moo perturbé sama troisième sem Pikines parce que damay jàngi mais en même temps damay am ay marché yoo xam ne dama ko a defar damay mujjee sacrifié school bi quoi ñëw dóor ko après dellu school finalement mané xaar affaire bi foog ma jël ko en ordre quoi si la offre études yi nag dugg si dugg si dugg si noonu ba en 2008 ma ma xam ne affaire bi après affaire dama commencé woon def euh, peinture yi daf moo ko doon commencé jàpp di ma sojloo et tout quoi par la suite laa ne xaar ma viré en infographie en infographie nag c'était dur parce que de un aw ma machine boo xamante ni naa ci exercer et tout euh, mais maa ngi doon publier samay produit Facebook parce que heure ba maa ngi doon liggéey ci peinture quoi finalement euh, je suis rencontré ben tubaab ben tubaab la rencontré mi ngi tudd Nazer Nago maa ngi de passage euh, moom la jokkool finalement mu mës a jëndal sama machine bi ma njëkk yor du ma ko fàtte ma ko marque Guédiawaye la woon waaw si machine bobu la commencé exercer di liggéey di am ben somme bu may denc finalement je me suis payé ma propre formation bo xamante en infographie la ba actuel j'ai eu mes diplômes ok kon looloo waral bañkat bi mooy pour ne pas être dépendant des autres mën a demal sa bopp quoi. waaw dëgg la. waaw léegi évolution marque bi mun est-ce que mun nañu si wax euh, noo xalaat ba ba nga xam ne xalaat nga def ne design bi nii lay demee da nga tëdd rek design bi ñëw sa bopp wala lan moo la inspiré. waaw bañkat nag parce que euh, tur bi moom maa ngi ko doon wuyoo déjà mais. bañkat man infographe laa te jot jot naa job ay marques yoo xamante ni bari na parce que ay gars ñu ngi am ay marques yoo xamante ni ñoom du ñu nekkuñu si milieu bi mais am nañu seen propre marque ma ne mais pourquoi man ma nekk si milieu bi di defaral gars yi seen propre marque te aw ma sama marque boobu si la bi ñëwee en nag heure maa ngi nekkoon ci benn imprimerie à Kër Massar j'ai fait là-bas deux ans aw moon opportunité génne marqué parce foofu aw ma droit laal dara lu dul liggéey kooku su ma wàccee la am droit laal sama liggéey boobu marque bi maa ngi ko travaillé durant un an parce que damay laal bàyyi laal bàyyi laal bàyyi ba finalement après ba ma quitté imprimerie bi laa door a lancé marque bi ok donc finalement da ngay laal bàyyi laal bàyyi ba finaliser marque bi légui par exemple ce premier génne bi nga koy génne ak support bi nga koy a def qu'est-ce que ça t'a fait kañ la woon. je me rappelle marque bi ba ma koy njëkk a mu ngi tombé euh, euh, première émission euh, concert Simon bi doon am Grand Théâtre parce que bon, on avait pro on avait qui prévu de porter des vax quoi ñu roowaale vax ma ne non pourquoi pas man moom sama marque man may dem di sol vax yooyu noonu après par la suite laa defaree benn ensemble boo jogging bu rouge la ak t-shirt bu blanc foofu laa njëkk a génne ak marque bi mais tout le monde me disait que mais saa su ma xamoon du ma sol vax bi bañkat bi laay ñëw nga defaral ma mais bi touché ma bu baax quoi cela ne lii moo ko lancé parce dina jàll. ok léegi lancé mais auparavant loo gis rek day am yan moy difficulté yi nga ci rencontrer ak yenn anecdote yi nga xamné mën nga ñu ko wax yo xamné metti won na trop quoi pour me lancer marque. waaw difficulté metti won na parce que euh, étant jeune tamit bo xamante ni euh, amoo koo xamante dina la épauler pour nga dem quoi metti won na trop pour me lancer marque bi parce que t-shirt yi foog nga jënd ko c'était cher ki flocage yi nga jënd ko dafa cher machine bi nga xamante ni moom mooy affaire bi amu mako won waaw. dafa cher en même temps gisuma koo xamante ni dina mën a jàppale pour ma jënd machine bi moo tax mu xawoon métti parce que da nga doon dem boo defaree sa support foog nga dem si benn imprimerie pour ñu daggal la ko nga doo ko presse foofu doo ko ñëw livrer client bi wala yooyu affaire dafa métti woon trop au début. sous-traitance nga doon liggéeyee waaw waaw. Euh, j'espère que évolué ba instant bi yaa ngi moom alhamdulilah la parce que machine yi ma doon wër ci defar ci set yëpp mu ngi ak man quoi. léegi bon comme gars yi ñu ngi naan bañkat bañkat je vois que ne beaucoup d' artistes ñu ngi koy solo affaire yooyu donc lan mooy sa relation ak yenn artistes yi surtout ñi nekk géejuwaay ak yooyu quoi. waaw sama relation ak artistes yi moom mën naa ne amuma benn xaar ma yàlla ak benn artiste parce que artiste bu si am événement di nga contacter bañkat pour mu ñëw soit day nekk sa sponsor soit day defar sa say t-shirt quoi comme. joob naa ak artiste bu mel ni ay IS 814 ak Mr Ndiol bi xam ne moo nekk Rock Team waaw tey yaa ngi joob ak yenn artistes yi affaire yooyu tey mën nañ xam lan mooy say projet yi nga xam ne yaa ngi koy teg parce que gis nañ marque bi ni ko évoluer ak tamit foo bëgg a yóbbu marque bi ak est-ce que da ngay dugg ci yeneen support de communication wala. waaw bañkat moom xaarul xaarul dara quoi parce que récemment rek maa ngi def benn shooting bu mag fii deux voies yi waaw feesoon na dell man yaakaaruma woon ne sax shooting bi dina demee noonu quoi bañkat nag ñun. ñu ngi waajalee événement suñu sañoon dañu fi def ay festival yoo xamante ni chaque année lay doon Guédiawaye ñi dañ ko xaar waaw te ñu ngi ci tànk yooyu noonu. waaw tey jii nii euh, yaa ngi participer ci festival yi pour mën a am benn vitrine ak yooyu yan festival nga jot a participer par rapport ak euh, pour jaay sa marque waa ci jotuma nag di dem ci ay festival comme ay expo streetwear parce que. avant sama marque bi protégé wu ko woon quoi dama doon bañ na dem foofu gars yi jël sama support soit utiliser ko feneen moo tax mais maintenant moom sama marque bi c'est bien protégé euh, fu mu toll nii événement bu am bu ñu woowee bañkat dina ñëw jàpp si récemment rek événement defal nice bi jot a jàll fii waaw joxe naa ci à fond quoi. Ah, tey jii nii nan nga gisee euh, milieu streetwear bi ci ci ci Sénégal parce que xam nañ ne Sénégalais pour ñu def consommer local yi sol yenn marques yi comme ay bañkat ak yeneen marques yi fi nekk un peu difficile yow nan nga gisee milieu streetwear bi au au Sénégal. waaw milieu streetwear bi Sénégal gars yi ñu ngi defar ay affaires yu rafet mais sénégalais yi pour ñu consommer local day xaw a métti quoi ñoom. il préfère ñu dem jëndi benn t-shirt Adidas wala benn Nike wala benn Gucci xam nga di ko sol alors que ñoom seen dëkk am na ay propre marques yoo xam ne ñu ngi fi am valeur man sama marque bañkat. képp ku mu ko jaay di nga ñëw ne ma jaayaat ma beneen parce que boo ñëwee di nga fi fekk qualité di nga fi fekk job bu nice waaw it ah, léegi par exemple bañkat ak structure bañkat Paul Graphe dong la wala dafa am beneen staff bu nekk ci ginnaaw. waaw bañkat nag euh, du Paul Graphe kese parce que man la ñuy wax le DG de la marque quoi mais y a des infographes derrière yoo xamante ni on a fait l'enfance ensemble. waaw kenn ki mu ngi tudd Djiba Graphe maa ngi koy salué de passage King Raz bañkat <laughs> JP Design <laughs> et Miaka from Kër Massar. ñoo ñoo nekk si ginnaaw ah. waaw ñoo ñoo nekk ci ginnaaw bañkat. Ah, léegi instant bii nag l'émission tire à sa fin sur Guédiawaye Info xoolee artiste tey ñu ngi ak euh, Paul Graphe le DG bi nga xam ne moom moom moom marque bañkat bi ñu sol nii. donc tey jii nii lan mooy sa dernier mot ak lan ngay tàggoog ci internet yi internet yi. waaw sama dernier mot mooy maanaam lépp li nga xam ne nit mu ngi koy def pour jëmale koo xam kanam rek gars yi war nañ cee jàpp bañ ko teg ay faay waaw parce que streetwear yi moom maa ngi maa ngi jàllale benn affaire boo xam ne dama ne képp koo xam ne ci li nga nekk buñ la ko nangulee rek. Sénégal dina jom kanam quoi affaire bi c'est pas besoin de défier la concurrence ku nekk toogal sa coin di job fépp foo nekk ci àdduna bi dinañ la fa fekk. Ah, tey mën nañ xaal Paul ak marque euh, markam bañkat ñu organiser beneen shooting bu mag wala dañuy organiser benn soirée défilé wala quelque chose pour nit ñi mën a gis euh, lan la bañkat di proposer quoi. waaw bañkat moom instant bii nii euh, man li ma bëgg mooy lancement marque bi quoi parce que marque bi tey boo xoolee tey am na 3 ans mais ba léegi lancé gu ma marque bi waaw. soirée de lancement nag laay xaar xam nga ba nga xamante ni foofu laa bëgg àdduna bi yëpp xam ni euh, bañkat la marque est dans la machine est sur la machine. est-ce que instant bi yaa ngi discuter ak ay partenaires bu ñi nga xam ne ay éventuel partenaires lañ bëgg a doon bëgg a ñëw contribuer si marque beeg waaw waaw am na ñu ma ci doon jot a jokkal parce que boo xoolee am na benn ASC bu nekk Grand Yoff ñoom ñu ngi ma woo di ma proposé nii ñoom seen mayo ASC dañoo bëgg bañkat bu nekk si kanam en tant que sponsor. et j'ai une relation relation des artistes yo xamanteni ñu ngi ba France mais pas leen gis quoi parce que leur communication man une affiche de publication et tout Euh, donc tey ñu ngi woon fii à Guédiawaye avec euh, Paul Graff bi nga xam ne moom moo yor la marque euh, bañkat ah ànd ak tout ce qui est graffiti en plus infographie donc mu koy def ànd ak stafam ñu nekk ci ginnaawam yëpp donc ñu koy encouragé bu baax baax donc Guédiawaye info Mbaye Prési xooli artiste ñu leen di dox dig jaje ba beneen yoon sur guédiawaye info point com restez connecté merci Paul merci bañkat donc ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon mbay Prési Ya yo fue.